kii du ndaxte. lan la luy problème bi. yaa dem ba tey ñu saaga góor ñi. maa leen di baal ak sonal naa leen. dégg naa sa clip nga bëggoon may buzz. pourtant du loolu la kay ku waral coow man la man maa def. dégg nga muñee ba ba tas. da nga waroon muñ garder sa vie privée. da nga waroon muñ nag buñ naa ko. waaw doo ñëw ma takk la. ñaareel ngay doon. loolu loolu loolu dafa diis. ñëwal waay bokk góor méttiwul. dama bokkaat daa métti. artiste yi li problem. problème artiste du yàgg français yi de boo mau méttilee rek mu métti léegi ko méttiloo parce que ay xale lañ te xam xamul dara def erreur eh, xale mooy def lu mu xamul bu paree réccu yaa ngi am ko vingt ans commencé màggat te pourtant xale laa de mais dégg rek ma du dëgg kanam dafa neewi xanaa dóor la dama wan lu bëri sa sorte bi lu ko waral déception déception benn mi déception totale def ans doon ma instant bi luma am jeun suma dox sama tank ba ñan ñaan noy def. ñu dag sa <laughs>